Mirne Roquina. salaamaaleykum yéen ñi nga xamante ne yéenay seetaan seen site vidéo Wassare Lamb amati nañ mbégte aw kontaante tey nag bu ñu gisee fi xam ne nu ngi stade municipal de Parcelles la fi andi mooy euh, open press bu Modou Lo bi moom moo ñu fi andi gis ngeen moo tax ñu ñëw fi gis ngeen ni bu ngeen gisee xam ne instant organisation am na ute naag yaa ma gën a xam gis ngeen policier yi ñëpp a nii ah gars yi ñëpp a nii organisation baa nii Modou Lo le moom mooy def open press moo tax tey ñun waa Wassare ñu ñëw fas yéene leen ko a ngi nii si kaw ah ko ah, ma yéeg ma wax ak gars yi leen ambiance bi tuuti. que li ngeen jot a amagum pour l' instant gis ngeen policiers yi ñu ngi defal li nga xamante ne mooy organisation bi ba léegi ngeen am ko en direct si wasaare lamb ah gis ngeen de instant bàyyi gars yi ngi sol nank nank gis ngeen gis ngeen ah nii la organisation bi demee. mix waa asiko yaa ngi ne borom asiko yaa ngi ne ci kaw seet gars yi ñu ngi te kii gis ngeen kii yaa gis ngeen kii gisatu gisatu Modou Lo la sol gis ngeen ah lan lañ mën a xaar tey ah mën a xaar tey. tey tey lu ah. eh, ngeen waajalee seen seen seen bii nga xam ne seen mbër bari na bari na. dégg nañ nañ Modou Lo. nañ dem ki gis ki nga xam ne moo di Ama Baldé nee na la soxla quoi. la ñuy wax ci ko jël. ah parce que maam Cheikh la. voilà du ko sax jël. roi bi ñoo koy yor ñoo dañ koy daan daan booy ñaar. dañ koy daan. dañ koy daan daan booy ñaar. loolu loolu nga wax de. waaw loolu dafa leer. te gaa gis ngeen ba léegi dañuy continuer ah ca saa ci ñëw saa looy wax kaay kaay kaay. kaay bul dem kaay. kaay kaay bul dem kaay kaay. te nax nax nga waajalee sa mbër bi nax nga ko waajalee nag. waaw Modou pare na. ah. Modou nga xamante ne moo di Ama nee na roi bi la soxla soxla dara lu dul roi bi. la comme ñoom Modou Kane à chaque fois rek la rek. waxu mbër la de toute façon bi yor nañu ko wax loo Parcelles Assainies. jour combat bi ñaata kaar ngeen fas yéene yóbbu. kon de kenn dem fii di wane tey di wax tey kii incha allah daal lépp pare nañ lépp bu ma doon bu ñu ëppee ba cinq ans. <laughs> stade ba xoolal. yéen a ko nar a yéen stade ba stade ba kay ñun vendredi ci guddi ñun vendredi ci guddi la ñuy def. dans pression. stade bi li koy defee mënuloo koy def. incha allah waxul la xaat ah. kan Zeyna Seck loo si wax nga de. waaw gis nga kontaan rek. di ñaanal suñu mbër rek ndam kawe njottam. ndax nekk na mbër bi nga xamante ne ñu ngi ko yàgg a topp. dina ma maanaam dañoo màggandoo ko ndax yàgg nañ ko topp. macha allah tey saa yoo demee ci kër bu suba ah. da ngay gën a am mbëggeel si moom. waaw ban heure ngeen fas yéene dem stade dañuy fanaani da ngeen di fanaani wala am nañ yaakaar yéen a nar a yéen a nar a feesal li nga xam ne moo di stade wala dem leen yoon mu daal. lan ngay wax sa mbër sa mbër loo koy wax. li ma koy conseillé rek mooy xolal bu mu topp ñëwee ci bërëb bërëb na ànd ak daal te te xam ne combat bi combat bi ndax ñoom dama ne Guinée Bissau rek dëkk fa léegi ñu fii lañ toog di entraîné te xam ne mystique am na waaye liggéey doole. gisee fee yeela mi sew mu mel ni ku doon xeesal ak ndelam bu set xamu ku la ngeen war waaye tëndal sa kalla kalla si kalla si Ama Baldé ak waa këram ah lañ doon wax seen tëndal baax mais mais ndel bi est-ce que est-ce que sëriñ bi moo leen ko dëgg yow mos nga gis bër bi dem di bëre ji di wat ah mais peut-être mën na nekk tegtal non non non non mbër day saqal karaw pour gàllaaj bi ñu ko ko sottee mu mën a koo jàpp waaye mbër bu set nga xam ne sotti ko day wàcc moom nee na roi bi la soxla roi bi lu ci lenn mënu am ko sax wala soo xoolee soo ko xoolee xool Modou Lo xam ne moo doon gën a jot roi des arènes rek waaw la yow loo xam ne. waaw ñun moom xam nga rek comme d'habitude waa KMB. KMB ñoo jàppale suñu mbër di ko xarañ loo. borom roi des arènes da bëgg a bàyyi ndox moom incha allah rabi. waaw yàlla doon na leen war a bëri ak amaana cinq. di kàttanu yàlla ak baaxam. dimanche la ñëw na. waaw incha allah dimanche ba ren ñaan yàlla ndam. ndax ñun lépp ci loxo yàlla lañ koy def dinañ ñëw ñëw ak yar. dinañ ñëw utilisation dinañ ñëw déeg dinañ ñëw fula dinañ ñëw fayda te nañ ne mbër bi loolu la àndal ci yàlla ak baaxam jàmm daal la ñuy woote non violence surtout loolu parce que surtout loolu kuy wax na nga wax loolu te mbir bi mbër la du kenn ñaari mbëree des ci bi ak quatre arbitre yi fay ne bu leen rombee na la xew nag a ah, incha allahu rabbi looloo jar a laaj incha allah ndam rek ci kaw ñaata kaar ngeen fas yéene yóbbu suur non ñun heure bu ñuy dem ren fas yéene dañoo fas yéenee def déparé police ba leen fas yéenee dajaloo ñun ñëpp déparé. déparé foofu fan si club foofu ñu ko bëgg déparé maximum maximum 9 heures. waaw parce que 7 heures war na ko fekk ñëpp maximum 9 heures ñu déparandoo def suñu convoi dem ñu xam ne ñun li ñu tax a jóg non violence la ñoo bëre daan dem nit incha allah. te gars ñu continuer ba léegi ah ñu dem xooli borom borom maillot Sénégal bi il faut que ziar naa la. yaa si jàpp yow maillot nga sol de ana yëre Modou Lo bi. nga sol de. waaw ana yëre Modou Lo bi. non Modou Lo mooy Sénégal. ah Modou ko gars xam ko. xam nga tey gars yi maa préféré sol yooyu man maa jënd génération ànd dooleel xare donc ñun tey dana ñëw pour la paix di wax amaane ko mu dal. la paix moo tax nga sol yére vert jaune rouge. la paix moo tax nga sol yére vert jaune rouge. Sénégal lépp Sénégal ama Sénégal la dëkk Modou Lo Sénégal la dëkk ndam li gënu Sénégal moo tax mu maye drapeau vert jaune rouge ñu xam ne ñun Ama Baldé nag xam ne moom lu mu waaj ñu waaj tey fukkam bu paree benn pare nañu fukkam lu ko làmb jaral rek jaral nañu ñun lu ko ëpp. alors Ibi voilà. la ngay yebee seen mbër seen mbër lan ngeen ko yebee. kon kooku bi amul nga koy wax xam nga lan la ñu koy wax mu dal jàpp ne amaama la dumaan mu ko mu ci kaw So